fi toujours box répétition nga ak Blindé bi mais événement bi ñu préparé CCS mais le 11 mars ah, ñu ngi taxaw fi ñu wax Loos Loos ko ñëpp xamee nañ ko ma bokk si série bu Sud fekk ak fii tam si répétition nga ak Blindé bi eh, eh, Loos ñu ngi leen nuyu. waaw ñaa ñu ngi leen di fay bu baax a baax. Ah, dañu lay fekk si répétition nga ak Blindé lan moo waral lan moo waral sa teewaay fii de. mais ñun dañoo bokk ci staff Ngaaxa à part staff pour dara Ngaaxa suñu grand frère la voilà quoi looloo tax nga fekk ñu fi tey. seen staff bi yéen a euh, lan ngeen seen staff bon ñun ñooy gérer organisation bi ñooy gérer artiste bi ñooy gérer communication bi c'est nous qui gère tout <laughs> waaw. loo ñu mën a wax si événement bi. bi li ma leen ci mën a wax mooy yaa ñu déjà yaa ngi fekk lieu bi ñu répété. ñu ngi ci préparation répétition yi ñu ngi ci ñu ngi ci répétition yi bu dee sises CICES li fa war a am yëpp tamit ñu ko war a liggéey ñu ngi koy liggéey. genre ñu ngi ci bain bi quoi ñu ngi ci bain wu événement bi. mais est-ce que si yéen. déggu ma. Esplanade Nancet Sall est-ce que royul foofu noonu dañ koy feesal man fees dell sax. défi la de. waaw mais défi loolu moom dëgg la kenn weddi ko quoi mais pour man artiste bu toll nii nga xam Blindé quoi kenn dootul présidente Sénégal ku feesal arène national euh, yaakaar naa Esplanade du grand euh, Esplanade Cissesse bi du la tëgg quoi. Euh, ñëpp xàmme nañu si service yi nii euh, deuxième saison bi mu ngi daw euh, <laughs> ah, mu dem après da nga koy montage mais mais bon Leuz Leuz en tant que acteur loo ñu mën a wax si Leuz en tant que acteur service yi nii bon loolu li ma leen ci mën a wax mbaa Leuz en tant que acteur série Virginie euh, peut-être nag gars ñu xamul mais am na facette yu bëri yoo xamante ne mi ngi si ñun quoi mais peut-être facette acteur bi lañ gisagum ak tuuti ci musique bi quoi waaw mais les moom il est polyvalent quoi. sa participation si série bi ni mu demee. bon dama toogoon ni benn jour quoi sama benn euh, ami de classe de passage ma koy nuyu bu baax Mamita mu ma pourquoi pas nga dem defi casting Virginie quoi parce que am nga talent bi tout ça ma bañ affaire yooyu moom mu yóbbu ma ci casting bi après ma defee casting bi ay quelques jours si la ma pot. bu Marodi ma koy nuyu aussi de passage woo ma ne ma dama bëgg nga joué ci benn série bu war a daw bu tudd Virginie quoi après noonu ci la intégré série bi. série bi noo dina succès bi succès bi. bon ça va xam nga ñun ay nit ay nit yoo xamante ne yàlla lañ gëm ak yeneen bi quoi te yaakaar naa ñoo ñoo ëpp succès ñëpp quoi yaakaar naa bi mu ñëwee après ñu ko dund comme ni ko war a dundee. ça va quoi comme niñ meloon rien n'a changé quoi tranquille voilà soo xoolee série bi euh, Fatia Sow mu ak kii Virginie ñoom ñaar ñëpp am nañ jëkkër euh, loolu de la leen def est-ce manque boobu noonu yéen a ngi yéen a ngi constaté si biir série bi bon xam nga ñun on est une famille quoi famille lañ quoi manquement bi je veux dire waa am na ci je veux amu ci amu ci mooy ñi ngi déggante ak ñoom ñi ngi gisante ak ñoom ñi ngi nekkante ak ñoom xam nga rien n'a changé quoi tey la gën a neex en voilà quoi mais avenir lu série Virginie lan la Virginie sans Virginie. bah c'est rien ah Virginie mi après am na lu ko empêché mu dem jàng ji à l'extérieur ba jëkkër fekk ko fa mais film mi ngi daw à saison mi ngi daw tey la gën a cartonné sans Virginie tu vois mais rien amul changement pour man quoi voilà. mais les ak xale yu jigéen ñi lan la. <laughs> laaj ko kii. non moom naa moom maa <laughs> problème man dégg naa bi ma juddoo imaam bi ma doon tudd dafa tufli woon sama nopp yàlla ko xale yu bëri topp xam naa looloo tax ñu fi quoi. léegi instant bi benn rek maa ngi ci kenn rek kenn rek laa. Eh, kàll la non ma xamoo la non kenn la moom xam na boppam mi ngi toog mi ngi may seetaan xam na. te mu ngi service service dina la bokk. non non bokkul série bi wax dëgg fa neex yàlla. Ah. waaw série bi moom ñu xale jigéen fa nekk ñii samay raq lañ ñii samay mag lañ ñii samay gaañ lañ. voilà quoi. si wóor na. non noonu la demee sax. donc ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf waay. Leuze ñu ngi maa ngi leen di fay. <coughs> waa Sénégal euh, si si staff daa mel ne rek ci laa bokk waaw. ban poste moom nga des euh, si si équipe staff bon euh, c'est moi qui gère tout ce qui est image image concert yi ngeen di gis yëpp si page Instagram maak Leuze bi ñoo koy jël. lu ñu mën a wax si événement bi. bon comme comme comme ni ngeen ko gisee ah actuellement ñu ngi si répétition yi et depuis bañ ko taxawalee ba tey tooguñu boo xoolee suñu bëti xam ne ça fait ay jours et yoo xam ne bon ay une de sommeil la ñu am tu vois. et que voilà quoi nekkul loo xamante ni tiit nañ si wala tiituñu si parce que ku jël arène nationale plus de 22000 places feesal ko donc xeewuñ si ses mais je pense pas mu nekk loo xamante ni. benn bërëb la boo xam ne mën nañ poser poids boo xamante ni ce sera difficile quoi. Euh, mais mu ngi jàll lu ma war a jàllee. moo tax nga ñëw de communication bi jàll moo tax nga am suñu numéro ñëw fekkee répétition bi. ñu bëri ñu bëri dañuy naan ngaa ko bilante dafay xaru mënut a fees si ses. waaw loolu ñu koy wax peut seen imagination la rek xam nga fii ku nekk yaa moom sa bopp mën nga toog sa gaal ci tu gis lu la neex nga wokk comprendre nga man mën naa toog sama gaal gis lu ma neex ma wokk loolu la rek. waaw. événement bi mën nañoo xaar ay surprise yu bëri. mën nañu. mën nañoo xaar ay surprise yu bëri. ah bien sûr maa ngi koy wax sànq ci benn interview bi ma doon def surprise bu may gën a ñaax sénégalais mooy ñu gis benn ba deux artistes boo xamante ni mosuñu yaakaar ni moom Ngaax dinañ bokk seen waaw ah, je pense loolu rek doy na comme surprise quoi. ban surprise waaw mooy gis ñaari artistes yoo xamante ni kenn mosul xalaat ni ñooñu jamono dina dem ba ñuy bokk ak Ngaax benn seen. la. non moo ko ni nii kon ñooñ duñ ñëw baa nga def ko surprise nga xam ne sénégalais dañuy ñëw dañ si kumpa waaw. waaw baax na ñu lay a ay